mambay ñaam mi waral coow li nag daal dina yëkkati ay kàddu ca situation bu démb bi ak seen procès bi nga xam ne daal dinañu koy renvoyé ba le 30 mars moom nag nee lu toll ci ñeenti weex mu ngi nii kii di Ousmane Sonko mu ngi koy fenal lenn rek la doon sàkk mooy que justice soit faite la mu bëgg ca digganteem ak kii di Ousmane Sonko nag mooy comme te daf ko daal di accusé wax ne kii di mambay ñaa dafa laale ak ca mbiri Prodac ba ci ay milliards de francs CFA mooy mu daal di ci indi ay preuve ministère du tourisme bi nag nee moom baalut kii di Ousmane Sonko te du mësa nangu naan dafay négocier bu fekkee ne mënul indi rapport buy wane ne la ko daal takkal ci dossier Prodac ba dëgg la nañu xam ne kon Ousmane Sonko mënul diriger Sénégal situation bi nag na mu ko jàngatee mooy kii di Ousmane Sonko dafa nekk di user aussi di abuser waale des renvois il fait tout pour que le procès ne puisse pas avoir lieu ñàkk ay preuve moo tax Ousmane Sonko beugul procès bi daldi am na xam ne yoy yooyu les kàddu nga xam yëkëti nako na ko ca kawam tegu ko fenn à chaque fois nak mu ngay jéem a wut ay prétexte pour daldi bëgg daw mais quoi qu'il en soit deug bi mom dina mujjé éclat.